man toog naa ci ay plateau yu dul jeex di wax ni li may yéene mag yi mooy mu sortir par la grande porte et à chaque fois dama doon wax ni sortir par la grande porte mooy mu bañ a déglu faucon yi ak ñi nga xam ne ñoo koy nara pousse ci mbir bi ñoo ko ñoo ko nar a yàqal ba pare boo moytuwul sax commencé na ndaw génn gaal gi donc na wax ne du ma def troisième candidature def na ko alhamdulillah dafa waroon a embrayer ci décrispation mooy lan mooy libérer les détenus politiques mën na ko ku graci gracier mille huit cent et quelques récemment ñoo xamante ne nii peut-être ay délinquants lañ et cetera xëy na c'était pour faire de la place pour nous Pastef mais ah mais mais ah, parce que après euh, euh, tu sais que les arrestations continuent donc bu gracier woon daal di teg dossier yi yëpp ci suuf ne man damay organiser élection yi libre et transparente Benno Bokk Yaakaar. mais le dialogue c'était le mécanisme. non defal nag le dialogue c'était le mécanisme. vous auriez yow xam nga ne poser le problème. yow xam nga ne y tout sauf un dialogue bëgguma ci attardé wu très franchement nañ focus ci li nécessaire man sama focus mooy naka la président Macky Sall di sortirer par la grande porte di bañ a génn. nit ñi di ko jébaane ci biti et cetera man yéenewu ma ko loolu très sincèrement parlant mais tant que mu ngi déglu ñenn ñu ko wër wala les faucons et cetera président bu dugg ci guute ñoo la dugal ci guuta ba pare daw bàyyi la fa ñooy njëkk a transhumé suba. mais mais mais moo tax li may wax nii ku ko waxul ni président Macky Sall sa ay jeex na waroo tànnal sénégalais yi libère la président Ousmane Sonko. les les gens aller battre leur campagne comme ni nga ko defee woon président Abdoulaye bàyyi la fan lañ teg Malick Gakou ne doo doo doo campagne doo doo def sa tournée comme ni nga ko teree woon nemmeeku tour président Ousmane Sonko li ñu def Malick Gakou du dëgg du yoon léegi opposition kenn amul droit depuis le 12 mais kenn amul droit marche c'est automatique avec les mêmes motifs boo déposer demande ñu yokk ci ne léegi opposition amatoo droit sax ne ngay jóg seeti say militants xam naa dañoo nara dañ cee nar a yokk ne kenn amul droit wuti parrainage parce que 2019 dugg nañ ci suñu ci kër yaayu Sonko di nangu ay parrain. mais mais mais foofu président Macky Sall dama koy woo c'est extrêmement important li may wax. mais temps lui la te yaakaar naa ne dina ma dégg ci barke burdu bi ñu nekk quatrième jour bii ñu nekk jëm ci gàmm yonante bi. li ko dese as néew na rafetal li ko dese as néew na rafetal te rafetal bi xam nga lan la na wax nitam yi ñu arrêté mu jëlaat l'état en mais terminé en beauté tànn nañ seen candidat na dem campagne yi mooy yum am baax na na bàyyi ñeneen ñi tànn seen candidat dem campagne na génn ñi ci prison yi na jéem a fexe nu mu xeexee immigration clandestine bi li ko fi desee que néew na jéem a fexe naka la ñuy bàyyee réew mi ne ñum sénégalais yi mën a tànn 2024 ki ñu yaakaar ne jàpp nañ ne kooku moom moo gën ci réew mi ñu tànn ko mais Sénégal wéy ci jàmm. mais parce nekk di xew ci sous région bi ñun daf